Monsieur Lamine Aïchafal, Monsieur le proviseur du lycée technique de caisse Monseigneur François Xavier la délégation du ministère des Forces armées, les responsables ici présents dans la salle, honorables invités, en vos rangs et qualités, j'ai l'insigne honneur et le privilège redoutable de m'adresser à cette auguste assemblée à ma qualité de coordinateur de ce cadre de concertation dénommé Horizon 2019. Horizon 2019 est né au mois d'octobre plus précisément le 26 octobre 2017, après plusieurs rencontres de jeunes du parti APR pour une solution à la situation politique de la ville de Caisse. Ainsi, nous avons jugé nécessaire de réanimer le parti. Durant des mois, les membres de ce cadre se sont attachés à concevoir méthodiquement et à mettre en œuvre rationnellement les différentes activités pouvant nous conduire vers une victoire écrasante de la coalition Benno Bokuyakar dans la commune de Kies. Parmi ces activités, il y a ce forum au thème révélateur et riche d'enseignements qui s'inscrit dans notre dynamique sans cesse renouvelée d'accompagner le président de la République, son Excellence Moussès Macky Sall, dans sa lourde tâche de faire conduire le Sénégal vers l'émergence. Nous pouvons noter aussi la sensibilisation des populations pour le retrait des cartes électeurs, en particulier les jeunes la jeunesse et la population estudiantine ici présente. Vous n'êtes pas sans savoir que toute société du monde est en quelque sorte le reflet et le miroir qui renvoie l'état d'évolution de sa jeunesse. La jeunesse est à la fois âge et passage. Elle constitue les possibilités et des expérimentations, des engagements et des choix. La jeunesse est une période d'apprentissage et de responsabilité, d'accès à l'indépendance matérielle et de construction identitaire à l'autonomie. On ne sait, on n'est pas citoyen. On apprend à le devenir. Il n'y a pas de développement ni de construction d'une nation sans civisme ni participation citoyenne et sans une mise à niveau des mentalités et des comportements. La situation socio-économique du pays qui doit stipuler la conscience de tout jeune, imbu de valeurs citoyennes, a amené la jeunesse à adopter un nouvel modèle de citoyenneté pour accélérer la marche du pays vers l'émergence. Et ici, à Horizon 2019, nous proposons une nouvelle politique visant à impliquer sa jeunesse et conscientiser à la gestion de la cité. Nous avons compris que pour développer notre cher pays, il faut investir sur la jeunesse, encadrer cette force la protéger contre toutes sortes de dépravations. Cette date du 24 février 2018, cette date d'aujourd'hui, n'est pas le fruit du hasard, car les prochaines élections présidentielles sont prévues jour pour jour le 24 février 2019. Décret 2018 253 du 22 janvier 2018. Nous en profitons pour lancer un appel à toute la population, en particulier la jeunesse soit à venir nous rejoindre dans ce combat. L'heure est au travail et à l'unité. Faire la synergie de nos forces est essentiel aujourd'hui, voire indispensable. Ainsi, nous demandons encore une fois à tout un chacun d'entre nous de faire taire les égaux, les querelles de positionnement et venir œuvrer pour donner, pour donner un second mandat dès le premier tour au président Macky Sall. Nous remercions vivement le ministre des Forces armées, M. Augustin Tim, qui n'a vraiment ménagé aucun effort pour la réussite de cette activité. Nous en profitons aussi pour remercier tous ceux qui, sont, qui ont participé de près ou de loin à la réussite de notre journée. Je vous dis, je vous souhaite à mon nom la bienvenue ak sen participation ci ndam li nga xamanteni mom lañuy xaar février 2019 kon ku ci nek tay ji bu ñëwé dañ la dig waxtaan waxtaan bi ñu la dig moy waxtaan wi nga xamanteni mom moom euh suñu xarit suñu andando suñu doomu ndey waye itam suñu kilifa ministre Ibrahima Wade mi nga xamanteni moom la président Macky Sall dénk tey ji li mu gën a fonk ci nguuram ndax ku nekk ci yéen xam na ne président Macky Sall bis bu ñu demee ba ca ngoonu 2019 ba yàlla jox ko ndam jox ñu ko ñun ñëpp la ko ko jox mooy lii nga xamante ni moom la dénk suñu waa ji toog nga xam ne doomi Cees la fi la dëkk fi la baaxoo fi la yaroo kon ku nekk ci ñun war naa jàpp cofeel ak mbëggeel ak considération bi président de la république jox doomu ah ñu ngi gëreum képp ku fi teew ndax dañu ne olof ya ko wax man nak duma wolof nar la jola séeréer ak yooyu ñu né peccum lire bu nexé ndey ja japp ci wag ya kon lii tey jii bu démé ba mëna a ba ñuy tollu fi di ñii ngeen gis ci suma ginnaaw ñoom ñépp dañu cee téye bu wóor ba ma puus ay weer a ngi nii octobre lañu wax ba léegi ñi ngi ci di puus di nasaka nocci ba lii mën a am tey suñu gone yi mën koo présenté kon ñu ngi gërëm ñi fi teew ñëpp ki nga xam ne moo war a def waxtaan bi nag duñu ko présenté dañuy bàyyi ba ci kanam bu ñu duggee ci li nga xam moom la ñu indil yóbbal bi nga xam moom la ñuy jox ku ci nekk te na koy déggee ñu dikkaat wax leen moom mooy kan dina fekk yéen ngeen xam ko ba pare kon du ñu def lu dul jébbal ko kàddu gi ah Ibrahima Wade euh, kàddu gàngoog ñu ngi rafetlu sa teewaay encore une fois euh, di la gërëm ci sa disponibilité ci sa engagement auprès du président de la République ci sa engagement auprès de tous les Thiessois ndax gis nañu ni ngay déployé woo ci terrain bi euh, vraiment ñu ngi lay bàyyeeg sa waa dëkk di lay waayeeg sa waa gox. nga wax leen li nga leen indil ñu war a avant ñuy tàmbali waxtaan wi asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. ci ci ci suba dama nekkoon euh, Rufisque ministre Ndioro Ndiaye ak ministre euh, Ismaïla Madior Fall woote woon foofu pour lancer lu mel nii ba ñu ko defee ñu wéet fa lool lañ fa waxtaane tam di loo xam ni. mën naa ni jàpp ni waa Rufisque jëlee nañ ci lu am solo eh, bañ cee ba ñuy conclure ñoom dañoo conclure daal ni bu doon seen sago Rufisque doon ville bi nga xam ni moo ëpp cër ci plan Sénégal émergent ma pare woon naa suma kàddu ma jël micro bi ci këroon doon ma ni ko. bu doon sama sago premier ci le plan Sénégal émergent ci wàllu développement waaye gannaaw topp ci gannaaw Thiès saal bi yëpp reetaan man leen lu ngeen ma invité ba noppi nag yéen ngeen xewle suba si sama waa ngeen di li ëpp solo ci yëf yi donc Rufisque buy jiitu na jiitu topp ci gannaaw loolu buñ ko bëggee def ba lu mel noonu am je pense que événement yu mel nii occasion la yoo xam day tax ñu waxtaan ci développement. je m'appelle Bassirou Sall euh, je suis le coordinateur de Horizon 2019. Euh, Horizon 2019 euh, ce sont des jeunes engagés qui dans un moment donné à Il y avait y avait une léthargie à euh, cause pour laquelle des jeunes se sont rencontrés pour au moins amener une animation au niveau du parti dans la commune de Thiès. C'est pourquoi nous avons euh, fait euh, des, calendriers, où nous avons établi un calendrier euh, d'activités. Et parmi ces activités, il y a le forum qui démarre aujourd'hui, ce 24 février 2018, les activités de Horizon 2019. Cette date n'est pas fortuite euh, parce que tout simplement, euh, euh, aujourd'hui, le 24 février 2018, jour pour jour, le 24 février 2018 sera le jour des élections présidentielles. Décret 2018, numéro 253 du 22 janvier 2018. Donc, raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de démarrer, nous, ici à Caisse, notre activité par ce forum portant sur le PSE et sur la réalisation du président de la République. On peut dire que nous, nous sommes en campagne. Parce que si vous voulez, si vous voulez l'appeler ainsi. Parce que nous sommes des jeunes qui, qui, faisons tout pour occuper le terrain ici à Caisse. Parce que on a dit l'émergence. Qu'est-ce que l'émergence Nous, notre rôle, c'est sensibiliser la jeunesse, sensibiliser la population vers l'horizon. C'est pour ça, c'est non. Horizon 2000, 2019. Donc là aussi, on a jugé nécessaire vraiment de, faire des activités tout le temps, d'occuper le terrain pour au moins montrer encore une fois ce que le président de la République veut amener le Sénégal. Réélire le président en 2019, c'est notre objectif dès le premier tour. C'est vrai que dans un pays, il y a toujours des problèmes. Partout où vous allez dans ce monde, il y a toujours des couacs et des problèmes. Mais le président de la République va essayer de régler ces problèmes. Grève des enseignants, c'est normal grève des, agents de santé, c'est normal. Tout simplement parce que nous tous, nous savons que euh, l'année qui précède, en général, l'année électorale, ce sont des années très difficiles. C'est pourquoi les gens se lèvent pour dire des choses, réclamer des choses, etc. extra. Mais euh, le président de la République, euh, avec son gouvernement, son staff, sont en train de régler définitivement ce problème. On peut noter dans tout secteur des manquements, c'est évident. Parce que vous savez tout simplement que le Sénégal est en marche. Le Sénégal n'est pas un pays développé. Le Sénégal n'est pas un pays, mais c'est un, pays en voie de développement. Et comme c'est un pays en voie de développement, il y aura toujours des manquements. Partout où vous allez dans le monde, il y a des manquements. Mais le président de la République fait tout ce qu'il peut pour régler au plus, au maximum possible ces manquements. asalaamaaleykum je Ousseynou vice coordinateur Horizon 2019 Nous sommes au Sénégal

nit ki nag pour mu voter la faaw mu xam li nga ko liggéeyal ci sa gox su ko defee mën a xam ne kat kii jëriñ na ma li liggéeyal na ma li kon naa ko sànnil sama kàddu loolu moo sababoon woote bi euh, ñu mën a wan population thiessoise bi li nga xam ni Macky Sall liggéey nañu ko fii ci biir Thiès. 24 février bi dañ koo taamu ndax boo dee xool du hasard li tax du hasard mooy président Macky Sall dafa def ci décret ni incha allahu rabbi le 24 février 2019 ci lay organiser élection présidentielle yi. ci biir loolu moo tax ñu tànn date bi xëy na sax dafa tombé li olof naan tombé moo waral ay gaaf kon ñu jàpp ni bis ni ki tey bis par bis ñu war a compter teg jéego bu ñu teggi teg beneen jéego pour war a dem ci élection yi nga xam ni moom mooy 2019 horizon 2019 aussi di ci liggéey ngir jox le président Macky Sall une majorité éclatante au soir du 24 euh, février 2019 loolu moo sabab ñu woote bis bi. Thiès euh, xel dar na fi li tax xel dal fi mooy dafa am ay ndaw ñu mel ni ñun. am ay responsable yo xam ne ñu ngi fi biir Thiès horizon 2019 di ci bay waram ben ngir dajalé responsable yi nga xam ne ñoo nekk fii biir Thiès kenn ku ci ne indi li nga xam amna am na yaakaar ne su ko defee président dina am euh résultat bu bu positif fi ci biir Thiès horizon 2019 nak mi ci bay waram comme ni ko waxé won ñun xaaruñu kenn instant bi ni daal ñun joxé nañ suñu coup d'envoi inshallah allahu rabi duñu téggi suñu tank fi ba kérok 2019 inshallah allah rabi lépp loo xam ne bëgg nañ ko yalla may ñu ndam muy le au soir du du 24 euh, février 2019 lolu ñu ngi ciy liggéey ñu ci bàyyi sunu war bo jëmee ci at mo xamni dang koy commencer rek ñu ne après bu jéxé rek élection day ñëw secteur bu ci né day yëngatu mais ñun japp nañ ni instant bii li nga xam président Macky Sall def nako fi nga ci ci Sénégal muy le PSE plan Sénégal émergent wala PUDC kenn ku ci né gis na ni lolu mi ngi dox ñun teg nañ ci sunu bët. te loolu moo sabab ñu woote ndaje mi ni kenn ku ne mën cee teg sa bët ci biir cees gii nii ñun jàpp nañ ni dina yomb incha allahu rabbi grève nag mën ta ñàkk ci benn dëkk li tax mën ta ñàkk mooy euh, nin ko waxee rek boo jubee ci euh, pré campagne toujours secteur bu ne dina jog yëngatu parce que ñun démb rek ñu ngi suivre actualité am na ci yoo bari yoo xam ni saafarawu na li ci des tamit am nañ yaakaar ne président Macky Sall dina ko saafara. boo gisee bis bi bis bi li ci aju lépp dafa bari ñun ban génnee ci élection yi ba tey élection législative yi passé cees amagul benn manifestation horizon 2019 kese kese moo fi ñëw def ci manifestation muy bisub tey bii nii kon bis bi li ci aju lépp dafa bari terrain bi nag doon koo séq ak ñoo xam ne ñoo fi nekk muy adversaire kenn werante wu ko mën nañoo bañ a tudd turam mais xam na ni Thiès APR moomu ko ñun de horizon 2019 bis ni ki tey jóg nañ ngir def sunu pré campagne du ma wax sa pré campagne ñun dugg nañ ci campagne ba parce que une année du dara jóg nañ ngir terrain bi képp koo xam ne nekk nga fi tan am yaakaar ni ñun suñ la woowee ci ñun nga ñëw ñu jural dara dina ci liggéey képp koo xam ne tamit nekk nga fi wax lenn loo xam ne pour gàllankoor président Macky Sall loolu ñu dina ci jug xar si suñu tànk tubéy bés ni ki tey daal jàpp nañ ni horizon 2019 jug na ngir liggéey ba 2019 incha allahu rabi yàlla may na ci ndam au premier tour avec une victoire éclatante au premier tour 60 pour cent lañ ko bëgg a jox te ja gëm nañ ko ñun gëm nañ loolu mën naa war naa mën a nekk ak responsable politique yi nga xam ne ñoo nekk fi biir Thiès waaw ñun nag duñ mën a jeexal te te gërëmuñu parce que lëg bu lekkee aram na ko gërëmee cooy peccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca mbaggee le ministre des forces armées monsieur Augustin Tine daf ñu accueillir këram ñu présenté ko li nga xam ne moom lañ bëgg liggéey mu wax ñu benn baat bu am solo daan horizon 2019 fait partie de ma famille te kenn ku ne xam na ni Augustin du waxantu boobu tey teggiwul loxoom benn yoon ci ñun mi ngi ñuy jàppale guddi ak bëccëg mi ngi suba ak nekk biir Thiès ñun kenn ku ci ne tàllal loxo pour ñu ànd liggéey mais tamit du gërëm fàtte mouvement de soutien yi fi ne duñ lim ndax ku lim doo juum mais ku lim da ngay fàtte mouvement de soutien yi kenn ku ci ne jàppale nañu tàllal nañ leen loxo pour ñu ànd liggéey ndax sotti ci la ak def ci ñoom résultat lañ bëgg ñun résultat lañ bëgg kon yaakaar naa ni kenn ku bu ëndee la nga yor affaire bi lin buñ ko bëggee dina mën a demee noonu dina yomb yàlla may ñu ndam ñun daal mooy suñu bataille yàlla may ñu ndam au premier tour yàlla nañu ko yàlla defal. ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment di di rafetlu euh, taxawaayu presse bi ci manifestation bi nga xamante tey jii euh, ay jeunes yu pasteefu ñoo ko organisé muy horizon 2000 euh, horizon 2019 horizon 2019 mu ngi judd en octobre. ñu doon ay xalé yo xam dañu am ci ñom yaakar parce que lepp lu ñuy yëngatu mooy ñu fësal liggéeyu président Macky Sall bi nga xam mom lay dox 2012 ba légui alors ñu war leena jappalé nek nekk seen ginnaaw dañu ne peccum lire bu nexé ndey ja japp ci wax deug la euh dafa responsables, responsable yu nek sen ginaaw taxaw di len jappalé euh, d'accord horizon 2019 groupe bi nga mouvement politique de jeunesse bi nga dafa perte pour porter euh, le message du président de la République du président de notre parti et du président de la coalition de notre belle coalition Benno Bokk kon ñu ngi gërëm horizon deux bu baax deux bu baax a baax ci manifestation bi cérémonie bu mag bi nga xam ci la ñu invité euh, woo ci ñi nga xamante ñoom la tey ji président de la république jox li mu gën a fonk ci gouvernance am muy PSE euh, ñu jox euh, le ministre Ibrahima Wade mu war ko exposé wax leen ci ruqeeg yuqaat yi nga xam ne ëllëg dinañu xam ne président lii muy wane lii muy jox lii muy dawal ci dëkk bi ci réew mi yëpp te ba mu daj vraiment lu mën a jëmale Sénégal kanam la amuñu nag ñun problème par rapport ak vraiment 2019 24 février 2019 nous avons un problème pourquoi parce que gëm ne président de la république a gagné parce que na lu gagné nous nous bi gagné, ñi nga gagné. la nous avons président na lu gagné Nous avons gagné avons gagné ba la avons wax euh, ñaata lay pourcentage premier tour deuxième tour deuxième tour bi nga avons gagné. la opposition dem ak président Macky Sall deuxième tour mais président Macky dadul da dul dem ak ñoom deuxième tour euh, kilifa diine yëpp d'accord nañu. jigéen ñi d'accord nañu ndaw yi d'accord nañu kon tey ji amatul lu muy prouver li ci def mooy ñun ñi nga xam ñoo nekk ci base bi ñu jéem a fësal di organiser ndaje yu mel ni di fësal liggéey bi nga xam ne moom la liggéey ci Sénégal ñu ngi gërëm encore une fois horizon 2019 di rafetlu seen jëf ji euh, di leen wax ne ñi ngi ci seen ginnaaw euh, ñi ngi seen ginnaaw tey ñi ngi seen kanam ëllëg ñi ngi seen fépp fépp ñu tune dinañ ñu gis teg dinañ ci taxaw ndax ñun lii ñuy def ñoon ñoom ñun loolu la ñu gëm taxawalu ñu fenn demu ñu fenn dañuy liggéeyal président sur le terrain ak bëcëk ñun loolu lañu gëm loolu lañu ñu yaakaar. di gërëm di sant ñi nga xam ni ñoom ñooy initiateur horizon mouvement horizon 2019 mi nga xam ni ñoom ñoo ma tànn tey daal di may euh, ñëw pour ma ñëw ma animer leen euh, conférence jour bi nga xam ne dañuy lancer seen mouvement bi. ma animé leen conférence ci li nga xam ni mooy jëfu président de la république Macky Sall li nga xam ni mooy résultat wu plan Sénégal émergent mooy gërëm bu baax. initiateur mouvement bi di leen sant ci li nga xam ne def nañ ko euh, di gërëm tam euh, suma xarit suma rak Basirou Sall mi nga xam ne moom la nekk à la tête du mouvement euh, waa bay bi ni mbir mi nii la rek nekk ci waar bi looloo tax bi ñu ma ko yëgalee tam man ni nag nu ma mënti def danaa ñëw pour waxtaan ak ñoom li nga xam ne nag lañ fi weccee xalaat mooy li mooy li ñu gis muy jëfu président Macky sàll ci wàllu plan Sénégal émergent xam nga plan Sénégal émergent bu ñu koy wax dafa yaatu bu njëkk bi mooy ni euh, ba nga xamee ni moom jël na décision ferme ni dina euh, lutter contre les inégalités sociales inégalité bi njëkk mooy bi nga xam moo jëm ci euh, nit ci àll bi ci loolu mu jël ci bu njëkk bi nga xam ni ba nga xamee ni croissance bi commencé na nekk xaarul sax mu yegg ci cëppandaw ga dafa jël loo xam ne toll na li ñuy wax cent vingt et un milliards ci

Euh, lu mel noonu tam mu def ko PUDC def ko ci wàllu yoon yi piste rurale yi nga xam ni am na gox yoo xam ni waxuma nawet sax bu nawetul sax dafay jafe yegg fa wala génn fa waxantuma laak bu nawetee loolu tam PUDC def ko ci gox yu bëri biir Sénégal ak bu mujj bi tam mu jël euh, li nga xam ni mooy euh, matériel d'allègement des travaux des femmes mu jox ko jigéen ñi ci àll bi mu mën leen soulager ci li nga xam mooy wàllu wal geeg ñoom seen yooyu donc loolu lépp muy lu am solo loo xam ne ni PUDC def na ko ci biir plan Sénégal émergent beneen bi tam mooy PUMA li nga xam programme d'urgence de modernisation des actes frontaliers maanaam ñi nga xam ni gox yi nga xam ñoo nekk ci frontières yi nga xam ni des fois gis fa police wala gendarmerie bu beneen dëkk bi moo gën yomb wala dem école ci beneen dëkk moo gën a yomb wala dem faju ji ci yeneen mu ni nag loolu du yoon ci ay doomu Sénégal yu bokk Sénégal ñu bañ a yegg ci loolu mu jël programme boobu nga xam ni door bu yàggul rek matul at waaye mu ngi def jéego yu am solo di soulager population yi li wàllu PSE tam ñu gis nii ci fànn boo jël rek ci wàllu koom-koom gi euh, yokk na koom-koom gi PSE dafa ni woon mu ngi wut mu ngi euh, yóotu 7 à 8 pour cent à partir de 2020 2023 ñu yegg bi mu commencé at bu njëkk bi nga xam ni nañ ko 2014 lañ ko door waaye du woon année pleine 2015 ñu weesu 6 pour 6 pour xaw ko weesu 2016 ñu yegg 6 virgule 6 euh, 2017 ñu yóotu woon 6 virgule 7 pour cent ci bu yàggul dara ñu ni 6 virgule 8 service ministère de l'Économie et des finances yi génn chiffre bu wees bi nga xam mooy chiffre réalité yi daal ni lu mu gàtt gàtt gàtt weesu 7

wàllu lepp dal meew mi lépp loo fépp foo laal rek ci wàllu lu économie productive fofu jéego yu am solo euh, nguru Sénégal comme comme Sénégal mu koy def bo xolé ci wàllu njàng mi ci wàllu santé ci wàllu éducation lépp fépp fo xol dal ci wàllu électricité yooyu yep euh, di yo xamni amna solo ci biir loolu nag Thiès euh, contribuer ci lu am solo waye tam bénéficier ci lu am solo pour contribution bi moy boy xol li wàllu énergie damay wax ni Thiès day sant dañu war sant yàlla parce que Thiès est la première région énergétique du Sénégal maanaam li nga xam ne ñu ngi koy produire ci énergie yëpp boo dajalee liñ koy liy génn ci région de Thiès ak moom mën naa ni ëpp na 50 pour cent li Sénégal soxla ci courant loolu dañ ko war a ndamoo parce que dana am lu mu jur lu baax ci wàllu koom-koom ci wàllu xëyum ndaw ñi booy xool tam Thiès doon na la pour le moment en tout cas parce que yeneen région itam gis nañ fa booru Diourbel booru Bambey gis nañ fa fos gis nañ fa ay mine booru Kédougou

ci ah, delu ci Sénégal yëpp waaye nag delu tam aussi ci ci ci gox ba mais ci li nga xam ñu ngi ciy liggéey pour que ñu traduire que ay liggéey ay wàllu xëyu ndaw ñi xaalu mag ñi parce que booy xool tey université yi ak institut de recherche yi nga xam ne moom mu nekk ca université politique de technique de Thiès mu ngi commencé spécialisé wu dans les métiers des mines parce que xale itam bu ñu jàngul métier boobu bu lu fi gi am am am am duñ ci mën a ji du leen mën a jël yóbbu leen foofu bu fekkee ne dañu dem di jàngi anglais wala ñu jàngi espagnol wala ñu jàngi leneen alors que la la dëkk ba soxla mooy njàngum ci wàllu métier mine loolu day tax du insérer leen dugal leen gën a yomb donc loolu muy loo xam ni ñu ngi liggéey tam euh, Thiès euh, nag njëriñam ci biir PSE lam ci gis ci biir PSE dafa am solo lool waxuma ñaar yooyu rek euh, AIBD bi nga xam ni ubbeeku na fii dama naan damay faral di wax ni moy li nga xam ne moy obène aubaine bu Thiès parce que AIBD bi tijji dafa wara tax li ñuy wax li tubaab di wax externalité positive war na ko mën a am ci biir Thiès te commencé na ko am parce que am na benn étude boo xam ne bëgg nañ ko lancer fii pour xam impact yu njëkk yu AIBD ci wàllu production ci wàllu restaurant yi ci wàllu euh, habitat bi tam parce que loolu dafa war a waaye nag il faut que waa Thiès il faut que secteur privé bu Thiès bi opérateur économique yi jóg ak ndaw ñi positionné wu ci loolu man am na ndaw ñu bëri ñoo xam ne ni fii la ñuy jóge di dem di xëy ci AIBD ak société yi nga xam ñu ngi foofu yok war na gën a yokk gën encore autoroute bi tamit mi nga xam dafa jaar biir Thiès ak la nga xam indi na ko maanaam ci yoon gaaw bi muy gaawal dem beeg dikk bi muy dem beeg dikk bu nit ñi di dem beeg dikk bu échange war na tax lépp di fiy génn ci ci di war a mën a dem di law fu nekk biir Sénégal di law fu mel ni Touba gannaaw Touba mu mën a dem ba Gambie dem ba Ziguinchor te loolu lépp la ko mën a la koy waral mooy lii nga xam ni président Macky Sall defal nañu ko mu di autoroute bi. loolu boo ko lëkkalee ak piste yi nga xam ni def na ko piste yooyu nga xam ne fépp fu ñu bay rek ak fépp fu ñu produire mu mën a dellu si vers les grands centres urbains day mën a tax vraiment Thiès war a mën gis boppam mais comme ni ma ko waxee sànq rek. war nañu góorgóorlu pour que Thiès donne la première ville économique du Sénégal mën na nekk xëccoo la réew yaa ngi koy xëccoo barki démb suma xarit Serigne Mbuub def na benn forum euh, la foire bu bu bu bu bu fika bu Kaolack bi la mu wut mooy Kaolack jouer un rôle gis ngeen xeexam mooy nan la ñuy def ba réhabiliter le port de Kaolack ñun loolu amuñu problème boobu amuñu port waaye nag am nañu jumtukaay yoo xam tey ji aéroport bi euh, dimension logistique bi mu am rek ak dimension centrale bi mu am rek war na tax Thiès ñu gën a takkuwaat gëna xamni plan Sénégal émergent pour ñu dëkk yu melni ñun la. raay bi nak dama ci bëgg rek ñu waxtaan ci mu leer li ma ci bëgg wax mooy ne euh, président Macky Sall dafa di ku gëm bu baax a baax a baax a baax raay dafa dem ba Union africaine daal di fay wax ni Afrique pour mu mën a développé wu mu le il faut que transport de masse pourquoi transport de masse parce que raay rek moo war a mën a indi ak yóbbu ci lu gaaw anam yu gaaw production bu bare. Euh, loolu tey jii gàllankoor boobu mu ñuy gàllankoor ñun ñu koy gis ci minbi mine bi mine bi nag Kédougou pour mu au port la muy indi dafa diis euh, euh, conteneur yi jóge port bi di dem Mali ak conteneur yi jóge Mali di ñëw port bi loolu tey jii tax na ñu ngi defar tali yi naam barki démb la ñu la inauguré Fatick Kaolack def ci alal ju ko war nañu góorgóorlu parce que raay bi bu fi ñëwee dana tax camion yooyu ak conteneur yooyu anam ba ñuy demee ak ba ñuy dikkee euh, dana soulager yoon yi accident yi soulager yoon yi gën a gaawal koom-koom gi ba tax na mu gëm fermement ni chemin de fer war nañ ko réhabiliter waaye chemin de fer ñu demande réhabiliter Dakar Bamako ferroviaire société bi créé nañ ko waaye société bi Dakar Bamako ferroviaire du Sénégal rek Sénégal la ak Mali ay waxtaan la. ak ak ay partenaires ban partenaire lañ ci dégg naa ni fan yi am na waxtaan bu ñu commencé ak ay ay chinois donc may wax rek sama mbokki cheminot yi parce que man doomu cheminot la man ba may faral di wax ni laaxu cheminot moom a ngénte sama papa cheminot la woon kenn waruñu kenn gënuñu bëgg tey jii delloo si chemin de fer waaye ci anam ba nga xam ni dafay dëgëre ci anam ba nga xam ni du mel ni comme par exemple Air Sénégal International ba mu fi ñëwee na fa ñëwee woon wala. Transrail ni mu fi nekkee woon nga xam ni la mu jur ay jafe-jafe la gën a jural sama xarit ak samay mbokk ak samay papa cheminot yooyu nga xam ni ñoo fa nekkoon ba état bi jël na alal ju bëre def ko ci alal ju bëre def ko ci di pour racheter euh, concession bi ak Mali jël alal ju bëre def ko ci pour euh, di fay salaire yi ba tey jii malgré jafe-jafe yi état bi mooy fay salaire yi lu tax mu koy def parce que gëm na ni chemin de fer bi dafa war a dellusiwaat état bu gëmul ni chemin de fer bi dafay dellusiwaat doo ci def xaalis da ngay bàyyi koy mu nax say waaye léegi nag li ci des mooy taaxiirlu continuer waxtaan bi continuer jàkkaarloo bi ak partenaire yi ak ñi nga xam ñoo ñuy jàppale ba chemin de fer buy si mu si ci anam boo xam ne incha allah dina anam boo xam ne dana doon la de des Thiessois. plan Sénégal émergent bañ koy bind président Macky Sall dafa dugal ci axe 3 bi la ñuy wax gouvernance sécurité ci biir gouvernance lam ci gëm mooy na nga xamee ni. moom la wara ñu war a ger non la ñu war a xeexee euh, prévarication maanaam li nga xam ni luubal alal ak yooyu euh, ma gis ni nag Sénégal tey jii de boy xool la nga xam ni def nañ war na ko def ci wàllu euh, jumtukaay jumtukaay yëpp a ngi fi te bu fi du man ni mu ngi fi jumtukaay yaa ngi fi yi kay yi permettre ñu xeex ko la nga xamee ni mooy wàllu texte législatif yi. Les a ngi fi. doing business amélioration des procédures manam améliorer rang au Sénégal fofu. Sénégal na def ba gagné 40 places ci ci ci ñeenti at liggéey ba la bo xamé ni indicateur yoy ñuy wax indicateur de transparence yooyu dafa bokk ci indicateur doing business donc bu fekké ni gagné nañu place fi ba mu yok suñu rang.